ndeysaan Amadou Ba nag il faut ma jox ko message. waaw waaw. premier ministre. waaw waaw. futur président de la république. waaw bu Sénégal. waaw. Mariama Bale yaayam Béli sa way maamam. waaw waaw. ci isim ñaari tëli. waaw. mu doon booba. booba ba fa Cheikh Mbaye nekkee booba judduwul sax. wallaay ndeysaan. te de booba moom juddoogul. Mhm. Amadou Ba. sunu kanam man ay sa mbay. Mariam Bale yaayam. man ay sa mbay nday jang mu papa yaan ma saar mm-hmm. yaayi mbay mbooj mu papa alaaji mbooj mm-hmm. ak mu yaaya mm-hmm. ci ñaari tali sama yaay Fatim Mbay waaw ak Fatim Mbay wallaay ndeysaan ca isin mm. bu doylu bu lislaame Mariama Baal yaay Amadou Ba def na fi ay hopital def fi ay poste de santé def fi ay jàkka ba pare dem bàyyi ko fi. ndeysaan nag bi mu mujjee sarxe barke Serigne tubaab Mbacke man mii la woolu ma ñëw mu ne ma tey duma la may xaalis. ndeysaan waaye yàpp rek laa lay may ndax géwél yàpp la. ndeysaan. <laughs> jël ñaar mbuusi ñaari mbuusi ñaar fukki dërëm. waaw ki yàpp mu fees mu jox ma. ndeysaan beeli saw maamam mi jur ma ma baal. Mhm. danaan jël leget yu bari yu joos mu weex daal def ko ceeb ba mu fees daal bu nekk mu def ci litre diwlin jël xaalis dugal ci biir. jeeg bu ñëw ne kër ga tey neexul mun la jëlal leget gee yóbbu Amadou ba bu séddalee kenn du ñàkk de. déedéet. ndax maamam beeli séddale na ba dem. Mhm. Mariama Baal ndeyam séddale na ba dem. lu baax rek la fi def. ndeysaan Amadou Ba ay waay wax ma ca song jéeri koli sama doom laay woo premier ministre Sénégal bi ay waay maa ngi lay woo ceetu ndaanaan yi ay waay Amadou président Macky Sall Mariam boolo boolo Mariam Sall boolo bàyyi Amadou dafa xool gaañi ba ñu doy leen mu xool la ba nga doy ko mu jël la boole la gaay ni leen ànd leen liggéey ngir ngeen mën a liggéeyal Sénégal li ma commencé woon ngeen yeggale ko. waa ma jaar foofu tàggoo.